السلام عليكم ورحمة الله
أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح أكبر
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومهوى الظلمه وكسف الغم عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ila yawmiddin ikhwatal iman mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom subhaanahu wa taala noo ngi ñaanal sunu yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu aljuma bi passé ñoo ngi doon fàttali sunu bopp doon fàttali mbokk julit yi ci sababul kasal fil ibada wa taa ana yan sabab mooy dal ab jullit ba mu tayal ci jaamu yàlla ak topp yàlla ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala yàlla dimbali woon nanu ba nu waxtaane woon ñaari tomb yi mu desoon benn bi ci desoon mooy al ilaaj mooy feebar yooyu ku mu dal sabab yooyu ku mu dal soo ci bëggee génn bu la ci yàlla tabaraka wa taala nammee génne kon foog nga def foog nga naan comprimé yi pour feebar yee wér ilaaj boobu muy saafara googu di garab gi nga xam ne moom mooy garabu faj feebaru tayal topp yàlla ak jaamu yàlla bi ci njëkk mooy dawaamul muraqaba wal muhaasaba fa hiya tajcalu al abd ala cilmin bi makaanihi min allah wa hal huwa fi ziyaada aw nuqsan feebar boobu mbokk yi ku mu daal nga bugg cee génn garab gi ngay njëkk a naan mooy almuraqaba mooy foog nga fuugloog sa digganteeg sa borom foog ngay surveiller sa bopp waaye di ko àtte di ko régler comme commerçant nu muy def bu jaayee ba ngoon bu tëjee bitig bi këpp toile bi xool tey li mu jaay ab jullit foog mu def noonu boppam boo yendoo ba tëdd jot bul ñëw rek tëdd jullit ñaari rakk fi nga sujjóot sa sujjóot bu mujj yaag sa boroom nga xool loo yendoo tey ci journée bi ndax say julli yu juróom julli nga ko ndax jàng nga fi quraan ndax tudd nga fi yàlla ndax gunge nga fi ab néew noonu nga contrôler yu baax yi nga xoolaat sa bopp ci yu manqué yi ndax fenoo fi mbaa tey man jëwuma fi mbaa rambaa jëwuma fi mbaa jaxasewuma fi nga xool tamit safaan yooyu bu la ci yàlla nattoo nga def ci benn wala ñaar mbaa ñett wala boo ci yendoo bul tëdd te tuuboo ndax xamoo ndax di nga fanaan la budda bil muraqaba wal muhasaba foog nga fuuglu sa bopp atte sa bopp régler sa bopp comme li Umar doon wax atte leen seen bopp bala ñu leen a atte xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu loolu lan la lay jural mooy muraqaba boobu tajaalul abdu ala ilmin bi makaanihi min allah day tax nga xam yow fan nga toll ci yàlla da ngaa bëgg a xam fan nga toll ci yàlla léeg-léeg ngay ànd ak ak kilifa nga bëgg a xam kilifa gi fan la toll ci yow da ngay bëgg sax ñu ne moom day waa ji xaritam la lu ko waa ji wax mu def ko mu def ko su ko waa ji tere mu bàyyi bu ko nee jàppal mu jàpp ñun tamit kenn ku nekk ci ñëw war ngaa xool sa digganteeg sa boroom fan nga toll sa boroom kenn du la ko wax balil insaanu ala nafsihi basira xam nga sa bopp xoolal sa jaamu yàlla yi foo toll rek di nga xam fan nga toll yàlla di nga xam da ngaa avancé wala da ngaa deltu ginnaaw hal anta fi isdiyaad aw fi nuqsaan di nga xam ne da ngaa dellu ci kanam wala da ngaa dellu ci ginnaaw bi nga dundee léegi ñaari at ñetti at juróomi at yaa ngi góorgóorlu ci keppaaru borom bi tabaraka wa taala yaa ngi góorgóorlu ci quraan ak sunna yaa ngi góorgóorlu ci sa diine waay waay keroog ba nga taxawee rëccu simmeeku mbub mi nga soloon sol beleen mbubbu jéem a bàyyi jikko yi xoolal boobu ba léegi da ngaa yokk wala da ngaa deltu ginnaaw xoolal boobu ba léegi ndax yaa ngi julli ji ci jàkk sa waxtu yi juróom xoolal boobu ba léegi ndax weeru koor yaa ngi koy taxawe xoolal boobu ba léegi ndax soo yeewoo am nga wirdul quraan yi am nga benn hisib wala ñaar wala ñett wala rubu wala nisif ci quraan booy jàng boobu ba léegi xoolal ndax yow azkaaru sabaax wal masa foo ci toll wirdu suba ak ngoon yi xoolal foo ci toll di nga xam ne da ngaa yokk wala nga xam da ngaa deltu ginnaaw ixwatal iman yaqulu lmawla tabaraka wa taala fi muhkami tanzil بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون sunu borom mooy woote mu ne yaa ayuha alladina amanu abdullah ibnu abbas nee na fooy dox ba dégg ñu ne yaa ayuha alladina amanu taxawal bul yëkkati beneen tànk bul déglu leneen bul xool leneen déglul baat boobu fa mu bàyyee ko baat bi lan la lay jox daf lay digal wala mu lay tere yaa ayyuha allazina amanu yëpp dañuy digle wala ñuy tere boor baay woote kan la woot ki ko gëm mu ne ittaqullaha moytu leen yàlla man yàlla na ngeen ma moytu doy na rek ñu war a déglu bu baax baat yi kuy kilifa yaakaar naa ne yàlla moo la gën a doon kilifa kuy màgg ku ne borom bee la gën a màgg su fekkee nit ñi ci àdduna kenn ku mag ci ñoom wala kilifa ci ñoom mooy taxaw ne moytu leen ma yaakaar naa ñëpp danañ moytu kilifa ci këram sax bu ne moytu leen ma ñëppay moytu waxuma laak nag ci réew waaye waaye buur bu tal ne yàlla ne moytu leen ma mu ne wal tanzur nafsu ma qaddamat li ghad kenn ku nekk ci yéen li muy def tey na ko bàyyi xel ndax ëllëg bu duggee bàmmeel lépp looy def tey xoolal bu baax ban résultat la lay jural ëllëg baynaka wa bayna allah sa digganteeg borom bi tabaraka wa taala mu ne wattaqullah inna allaha xabirum bima taamaluun moytu leen yàlla ndax li ngeen di def dara ump ko ci allahu akbar xabir bima taamaluun gars yi dañ naan ndax baat bi wax ko dagan na wala daganul ñu ne ki dañ kumpa kenn kese la mooy yàlla lu wér la keneen ku mu doon yenn saa yi nga dégg ñu ne doomu aadama yow da ngaa dañ kumpa dañ laa tuumaal baat boobu moomoo ko yow dañoo kumpa yow da ngaa bañ kumpa looloo tax loo dégg dem seeti lu fa xew parce que da ngaa bañ kumpa da ngaa bañ lu la ump amma ki dañ kumpa kenn la muy allah xabiir lépp la xam dara soxlaalul ko pour muy dem di xooli lu fa xew parce que xam na ko buur boobu nag nga xam ne nee na yow xam naa sa lépp kooku war nga kaa mooy tëndiku amul lu yàlla xamul ci ñun kon première tombe pour ñu faju ci feebaru tayal ci jaamu yàlla mooy almuraqaba wal muhasaba ñaareel mooy assila billah assila billah foog ñu jéem a defar sunu digganteeg sunu borom ñu am relation ñu am ak buum ak ceen gu ñu tënk sunu nos nekk ci loxo borom bi tabaraka wa taala suñu defu loolu dañuy sonn jullit foog mu jéem a leeral digganteem ak boroomam foog mu jéem a defar relation boobu wa tadabburul qur'an muy jàng alqur'an ci jàng bi muy jàng alqur'an tiim ko ak bëtam ak xelam ak xolam di ko jàng ci lay defaree digganteem ak borom bi benn borom xam-xam danaan xëy di jàng alqur'an bis bu nekk saa yu xëyee baayam ne ko yaa ngi jàng alqur'an mu ne waaw bàyyi ji dem ba mu tolloog lu tolloog fukki at wala fukki at ak juróom wala ñaar fukki at saa yu nekk rek papa ñaa ngi ne ko yaa ngi jàng alquran mu ne maa ngi jàng alquran benn bis papa ji ne ko yaa ngi jàng mu ne ko su bis bu nekk yaa ngi jàng rek mu ne waaw tey moom dina am tontu comme laaj nga comme tey laaj nga dina am tontu yeneen yépp to laajoo woon mu ne waaw lu tax saa yoo xëyee ne ma jàng ndax yaa ngi jàng mu ne dama bëgg nga jàng alquran bi mu mel ne ci yow lañ ko wàcce bul ko wàcce ci keneen ñun ñëpp loolu mooy suñu problème jàng aaya ba mu jeex nga jox ko nit ñi yow ne bokkoo ci doo defaru jamais ila yawmi diin ba yowma alqiyamati yow doo baax iqra alquran ka annahu unzila ilayka jàng ko mu mel ne yow ci yow lañ ko wàcc loolu moo taxoon sahaaba yi baax loolu moo tax yonent yàlla muhammad mu baax ndax aaya yi bi muy wàcc daf ko jël daf ko moomeel di ko dund bi mu génnee àdduna benn sahaaba moo jóge ca àll ba ca kaw ga ab arab ñëw ci ñi mag ñi ci sahaaba yeeg ñeneen ñépp mu ne leen yonent bi mooy kan ki ñu ñàkk démb mooy kan gaa yi naan muhammad ibnu abdallah mu ne yéen xamu leen ko mu wër ñëpp bañ jeex ñuñ ko wanoon kenn wax ko ci lu ko doy ñu ne ko daal lenn daal moo fi des mooy nga dem ci Aïcha mu waaxu ñëw fekk yaay Aïcha mu ne yonent bi laay laay laaj mooy kan kan moo doon yonent bi allahu akbar yaay Aïcha yaay Aïcha tontu sahaaba boobu ne ko da ngaa bëgg a xam kan mooy yonent bi mu ne ko waaw mu ne ko mooy Qur'an ndax mës nga jàng alquran mu ne waaw mu ne alquran a ngoog nekkoon na alquran bu doon dox ci kaw suuf li alquran jàngale yépp yonent bi def na ko li mu tere yépp bàyyi na ko moom la kon moom moo ko firi kon ab jullit buy jàng alquran na ëpp rek def li xew tey naa fexe rek tey journée bi war naa fee jàng fukki aaya wala ma jàng fii nangam wala rek daal di koy dóor mu daanu daal di teg fële téere bi déedéet loolu taxul alquran jóg da ngay jàng benn pour am tiyaaba waaye da ngay jàng pour dëgëral sa pas-pas sa tawxid sa aqida waaye da ngay jàng pour journée bi tey nga xam fooy teg sa tànk ixwatal iman bi ngay jàng alquran ci ngay yëg màggaayu yàlla tabaraka wa taala ci nga yëg ne sa xol bi dafa feebar nga bëgg faju borom bi ne wallahu anzala alqur'ana shifaa'un li li dawaa li dawaa il qalb wal badan yàlla dafa wàcce qur'an pour faj xol yi ak yaram yi mu ne wa nunazzilu min alqur'an ma huwa shifaa'un wa rahma kitaabun anzalnaahu ilayka mubaaraka liyatadabbaru ayaatihi waliyatazakkaru ulul albaab waliyatazakkara ulul albaab téere la boo xam ne man yàlla maa ko wàcce mu nekk shifa muy faj waaye mu nekk yërmande waaye téere la boo xam ne maa ko wàcce mu am barke pour ngeen xool aaye yi waaye téere la boo xam ne maa ko wàcce pour yéen borom xel yi ngeen xalaat ci téere bi kon téere boobu ëpp nay jàng rek comme ñun lu ñu xewal balaa ñuy jàng alxuraan am ku dee bal sax dañoo def téere bi téere ku dee tey jii boo amee benn mbokk bu feebar sukuraat sukuraat bi metti lool dañ naan kaay leen ngeen jàngal ko yaasin pour mu dee allahu akbar li waa ji di wax nee na alxuraan dafa wàccoon pour nit dund tey ñu koy jàng pour nit dee wallahi wax na dëgg kaay leen ngeen jàngal ko quraan ndax mu dee nga gis gars yi daal di ñëw ku nekk génne sa yaasin bu nu jàngee rek ndogal yàlla daal di tollal lu ñu ne gis ngeen yaasin lu baax la ku bëgg dee rek munoo dee rek jàngaleen ko yaasin mu dee kon ñun ñi tey bu ñu jàngaloon yaasin léegi ñu dee allahu akbar foofu la sénégalais yi toll yàlla wax ci saar boobu même saar bi ne alquran da maa ko wàcce li tunzira man kaana hayyan pour ñu jàngal ko nit balaa muy dee ñun ñu ne ñun nan ko jàngal ku dee yàlla mu ne pour kuy dund ñu ne ñun pour ku dee ixwatal iman ñetteel ci garab yooyu nga xam ne mooy faj feebaru tayal ci jaamu yàlla mooy zikrullah tudd yàlla tabaraka wa taala fa huwa jalaul qulub tudd yàlla mooy mooy faj xol xol bu feebar foo gis borom xol bu feebar nga bugg koo faj wax ko mu tudd yàlla moom mooy dindi xomaatu xol moo koy saafara min amradiha ci mboolem feebar yi dal xol bi borom bi tabaraka wa taala moo wax ci quran wazkuru llaha kathiran laallakum tuflihun gis nga kii tudd yàlla lan lay njëkk a am bénéfice mooy day texe tudd yàlla mooy tax nit xam kan mooy allahu tabaraka wa taala lu tax ala bi dicri llahi tatmainul qulub tudd yàlla dong mooy tax nit xelam dal addina bi lu ñu tiit tiit lu ñuy trembale trembale waa ji moom du tiit du jàq parce que am na ku xolam aju tudd yàlla mooy tax nit am tawxiid hatta boo nekkee ci oto yi oto rëngi rëngi doo tudd samba doo tudd cheikh doo tudd kenn koy wax subhanallah walal tey boo tàmmee tudd yàlla lu xew rek yàlla mooy génn sa gémmiñ waaye boo tàmmee tudd keneen hatta booy waat sax boo tàmmee tudd yàlla ci yàlla ngay waat waaye boo tàmmee keneen keneen ngay wax li nekk sa xol bi rek mooy génn kon nañu tàmm yàlla ci sunu xol yi ixwata al iman yaqulu al imam ibnu al qayim rahimahullah fi al qalbi qaswa la yuziluha illa dikrullahi taala imam ibnu al qayim nee na xol yenn saa yi day wow alquran moo ko wax kalla barraana ala qulubihim ma kaanu yaksibuun ñi seen xol yi dañoo wow lu ko wowal mooy jëf yu bon yiñ doon def su demee noonu nag kon li war ci yow mooy nga tudd yàlla imaam nee na ci xol yenn saa yi day xomaat li koy faj mooy tudd yàlla moo tax gis nga yonent dafa amoon ay waxtu yoo xam ne dafay tudd yàlla sahaaba yi nee nañ kunna nauddu lir rasul sallallahu alayhi wa sallam fi majlisil wahid doon nañ ko konteel ci benn place bu mu toog subhanaka allahuma wa hamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk iddata marat baat boobu fii yonent toog la koy wax yonent maqaam bu nekk am na lu muy wax fu nekk dafay tudd yàlla fenn dong la yonent daawul tudd yàlla mooy duus duus kese jàngeen sax ñu ne sahaaba yi seen làmm ñi dafa tàmmoon di tudd yàlla di tudd yàlla ba bu ñuy dugg ci toilette yi buñ doon faj aajo dañuy sex xooxi tàndarma matt ko ngir bañ a tudd yàlla foofu ndax tàmm biñ ko tàmmal seen bopp ay na nahnu min haula ñun sax yi am na ñoo xam ne jàpp nañ ne xëy suba di def ay wird ay zikr loolu bidaa la ngoon parce que dañoo tàmm di wax bidaa bidaa ba soo gisee kuy def loolu sax toog ci jàkka ji ni ñun ah yow mbokk barki démb moo ci mujj benn mbokk bu génn àdduna yal na ko yàlla yërëm ñu yóbbu ci armeel yi di ko denc néew bi yéex a ñëw am ku ñëw ba ci man ne ma tee ñoo def bayaan balaa néew bi ñëw ñu leeral mbokk yi nan la ñuy dencee jullit bu faatu ñu ne ah loolu day xayran loolu de lu yiw la ñu bayaan ba bayaan bi jeex fa isa mufaajaa yufaajiu nii xiinama rajaatu ila al bayt ban mbetteel laa am mooy bi ma delloo kër ga ay quelques minutes rek am ku ma woo téléphone salaamaaleykum waaleykum salaam cheikh bi daal tey da ngeen dundal bidaa ndax ay armeel kenn du ci bayaan te loolu mu may wax di ma ko tere Bukhari def cee indi buntu Bukhari laa wax al imam Bukhari ku jóg fii booy boo nga dem uti ji Bukhari baabun la wax baab bunt boo xam ne al maw'iza fi l maqbara inda al qabri noonu la imam Bukhari waxee baat bi waaye alhamdulillah ba nu amee ay dalil te dunu di nelaw rek ixwat al iman nanu tàmm tudd yàlla bu nu yaakaar ne benn nit bu ñu gis ci jàkka mu tudd yàlla rek dafa def bi daa laa zikrullah mubah fi kulli makan wa fi kulli zaman tudd yàlla laajul njàpp laajul place mubah dañ ko bëgg ci yow nga koy wax tout le temps foo toll laajul njàpp laajul sangu ci xol ba la jëm loolu la jullit war a tàmm tàmmal tudd yàlla ci mbedd bi booy dox boo toogee ci oto xolal li nit toog fii jëm Dakar ci oto di xulli garab yi rek ak oto yi koy romb ak jigéen ñi def yaramu neen kese xoolal kooku bu concentré woon di tudd yàlla ba mu yegg wala mu yor ab kaamilam tim ko di jàng Quraan ba ba mu yegg ñaati yaaba la am xataa ndaw si dem marché sax gàddu leketam war nay mën a tudd yàlla ba dugg marché di tudd yàlla ba génn marché bi ba egg këram waaye yaruñu sunu bopp ci loolu mooy sunu problème mbokk yi ci yàlla ñeenteel ci feebar yooyu nga xam ne ku mu dal boo duggul ci yoon wi doo faju mooy addu'a tàmmal sunu bopp ñaan yaqulu almawla tabaraka wa taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين جلد ورنا يار بوبام دي ñaan yalla لا حول ولا قوه الا بالله musiba bi ñu ñëk ñak tay ci diina ji moy ñaan ñaan mbir am rek nga dem japp ñaari rak rek talal yalla sa loxo wala mbir am rek nga talal yalla sa loxo ab julit loolu la war a tàmm ñaan waaye ñun dañuy wër wër wër ba sonn dara desatuñu ñëw nag ah fi mu nekk nii de yàllaa ci des dem nan fu nekk fu nekk daal dugg naa fa lijjanti naa problème bi affaire bi rek lawul léegi nag ah xaaral ma bàyyeekoo ak yàlla allahu akbar avant nga doon dem fenn kay ci yàlla nga waroon njëkke ci yàlla xoola sahaaba yi keroog ba leen gars yi ne tey ngeen dee de yéeféer yaa ngi dajaloo te arme yu ñu yor mbooloo ma ñu yor lan la sahaaba yi toll hasbuna allahu wa ni'mal wakil ci yàlla lan dem laxtu ji hasbunallah wa ni'mal wakil yonent bi keroog ba mu tiitee Aboubacar tiitee ñu nekk ci xunt mi Aboubacar ne bu nu xoolaan rek gis nu lan la yonent bi wax Aboubacar laa tahzan inna allaha maana banu Israil keroog ban leen firawna dàqee nekk seen ginnaaw géej gi nekk seen kanam gaa ñi naan inna la mudrakun tey ñu dee Moussa ba mu leen gestoo lan la leen wax inna ma'i rabbi maa ngi ànd ak sama borom keroog ba waa Makka ne du ñu garder Kaaba gi ndax Abraha da koy toj te ñoom ñemewuñu gëleem yi nan la ñuy def Abdul Mutalib ne leen dem leen ngeen yéeg ci xeer yi ñu ne ko Kaaba gi nag mu ne leen inna lil bayti rabban yahmihi Kaaba gi am na boromam boromam dina ko garder mbokk yi ci yàlla nañuy ñaan ab julit addu'a huwa al ibada addu'a silahul mu'min addu'a jàngeen sax ci nawawi même bu ñuy jam hadis bi ñu ne addu'a muqul ibada ñaan yàlla na la gis nga koy ñaan nga soxla yàlla waaye am na ñoo xam ne ñun soxla wuñu yàlla du ñaan mukk mukk hatta bu awqaatu xam sax bu nu paree rek fir doo leen fekk mukk ñu toog jël cinq minutes xoolal sag waxtu dama koy wax ci weeru koor yonent bi nee na inna li saaimi daawatan yustajaabu ku woor am nga ñaan bu nu lay nangul booy dog indal fitr waaye da ngay gis fi waa ji même buy dog tàndarma bi mu ngi ci biir alhamdulilah kenn du dégg ñaan bi ndax sàqa mi tàndarma bi ci biir gémmiñ gi balaa ngay dog balaa ngay dog lañ la wax tàllalal yàlla sa loxo cinq minutes dix minutes trente secondes yooyu bàyyi xel yàlla ñaan instant bi soxla nañ ñaan de mbokk yi ci yàlla juróom-ñetti tomb yi mooy tomb yi nga xam ne ku feebar ci tayal yàlla tabaraka wa taala boo ko jëfandikoo bi di nga wér aqulu ma tasmaun wa astaghfiru allah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim alhamdulillahi wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون إخوة الإيمان تتم بيوي بقنتي المداومة على النوافل nit ñi nañu sax jullit bi day sax ci naafila suñ ne naafila nag ñu bari ci ñun te nañ ne ah waaw man man de maa ngi julli rek wala naafila julli la ko jàpp julli am na naafila koor am na naafila azaka am na naafila mbooleem jaamu yàlla yi am na nawaafil mbooleem jaamu yàlla yi am na naafila ginnaaw ba la yàlla waxee lii farata la la ci ginnaaw farata mooy naafila loo xam ne boo ko defee ñu yokkal la tiyaaba sax ci bi ngay sax la ca bokkul nga ko ciy boole day tax kan koy defal sax bëgg la xataa bu doon usine la booy liggéey ñu ne la huit heures ngay xëy midi ngay wàcc trois heures ngay gont cinq heures ngay wàcc yow boo xëyee huit heures liggéey ba une heure boo gontoo trois heures liggéey ba sept heures borom usine bi nu mu lay def waxuma la heure supplémentaire bi mu lay yokkal waaye da lay bëgg ndax day xam ne yaa ngi jàpp ci société bi pour mu taxaw waaye imaginel koo xam ne non man huit heures la midi damay wàcc tafatal ay ni duma ko bale sax du ma ko yëkkati kooku même bu mu nekkee liggéeykat borom kër ga day xat day xat ci moom ndax danaan kii ki baaxul donte li xoolal huit heures rek ak midi lan ko wax mu ngi ko respecté ab julit noonu la da ngay bëgg yàlla da ngay def sacrifice ci yenn waxtu yi nga jox ko borom bi tabaraka wa taala nga yokk ci say naafil julli balaa julli farata yi yi nga war a def boo jullee ba pare ak koor yi nga war a def naafila nga respecté ko ak sarax yi ngay def yooyu yëpp nga volontaire pour nga am tiyaaba beneen tomb bi mooy alxirs ala suhba alsaaliha nanu góorgóorlu ñu ut ay xarit yu baax soo bëggee baax da ngay am xarit bu baax àndandoo bu baax boo xam ne bu la gisul ci jàkka ji fajar balaa muy tëdd dina la woo téléphone waaw yow foo nekk mbaa jàmm la bu la gisul ci mbooloo diine yi dina la woo wala mu seeti la waaye àndandoo yu bon munoo fexe ba nga baax soo amee àndandoo yu bon fokk nga am àndandoo yu baax beneen tomb bi ci des mooy qiraatul kutub al muxassasa fi siyaril ashaabul himam ngay fexe bu fekkee mën nga jàng ngay liir histoire nit ñu baax ñi lan moo taxoon ñoom ñu baax ñooñu amoon yitte ñoom imam ahmad ñoom malik sahabatul kiram ginnaaw qisasul anbiya yonent yi nga fexe nga jàng histoire nit ñu baax ñi soo ko jàngee nga xam ñoom ni ñu dëgëre woon ni ñu amee woon pas-pas ni ñu amee woon iman yow nga góor-góorlu ci yoon woowu ngir borom bi tabaraka wa taala jàppale la musidal fulɓe ko haalanno ɗen gila naane e jolfo eɗen yiɗi etade bi isnillahi tabaraka wa taala firtanen ɗum musidɓe ɓe e minitaji ɗiɗi bi isnillah en wi ñawnan ɗo ñaw ñaw ngo annduɗa so memi neɗɗo neɗɗo o o hamayi e rewde allah tabaraka wa taala o defeere hawa rewa allah ɗum ɗon noon so neɗɗo yiɗi hen yaltude nguɗon ñaw holko ettoto wadde hoore makko o waɗa mu almuraqaba walmuhasaba o etto hakkunde makko e joomi ko hoto wat hen neɗɗo hoto wat hen hay gooto o ƴeewa golle makko nde o gollata hakkunde makko e allah so fini gila subaka haa kikiide hade makko lelaade o ƴeewa hannde oɗo ñalawma holko golli mbele kanko o juuli julɗe ɗe ɗeɗo joyi jama mbele kanko hannde o jangi qur'an mbele hannde kanko o waɗi zicre o inni allah tabaraka wa taala e ɗemngal makko ko noon aɗa waɗa aɗa ƴeewa goota par goota goota par goota ha ngayna golle ɗe so tawi a ƴeewi on bange fof a timmini ƴeewa mbele hannde a waɗani bakkat est ce que min hannde mi ƴeewani ɗo komi fotani ƴeewde est ce que mi nanani komi mi heɗaki ko pot komi fotani heɗade est ce que mi haalani est ce que mi memani est ce que noon puɗɗa lelade so tawi a waɗi oto lelote a tubani so tawi a waɗani hoto lela a yettani allah subahanahu wa taala allah ñimnuma e ngal ɗo lawol maya hen ko rewi hen woni assila billah eto hakkude ma e allah ɓoggol ngol hoto taj ko ɓoggi kaɓɓa e daaɗe men allah ne jogii an hoto taj ɓoggol wongol hakkude ma e allah tabaraka wa taala eto ɓoggol ngol ñiiɓa hakkunde ma e allah tabaraka wa taala so ɓoggol ngol yehi alhaali ma fof boni ko rewi hen woni zicrullah eɗo ɗo wonɗa kala aɗa inna tabaraka wa taala aɗa inna allah wownu ɗemgal ma ngal innude allah e innude goɗɗo sa wowi innude allah kala caɗele dañɗa ko allah innata kono sa wowi innude goɗɗo kala caɗele dañɗa ko goɗɗo innata a etoto woowa innude allah jamma e ñalawma hadema sa ka haala ɗo gonɗa allah subahana wa taala e qur'an waskuru llaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ka dariɗo ka jooɗiɗo ka leliɗo fof innu allah innu allah tabaraka wa taala ko rewi hen woni addu'a kala ɗo wonɗa eto aɗa duwo allah aɗa ñaagoho aɗa toro allah tabaraka wa taala alha hande eɗen eɗen sohli duwa walla en sohlani eɗen sohli ballal allah walla en sohlani wallahi eɗen sohli ko rewi hen woni almudawama ala nawafil eto ñiiɓa e naafilaji ma oto wi rek mi juuli gasi mi hoori lewru korka gasi mi yaltini asaka gasi ala ino jogii nawafilaji so tawi ko juulde no jogii nawafil so tawi ko korka ino jogii nawafil so tawi ko asaka kala koñ gonɗa ko allah yamirma hedde mum ino jogii naafila gonɗo hen ko rewi hen law gongol ngol woni alhirsa ala suhba assaliha eto daña musidal julɓe janggoɓe joom aqida sahiha en joom tawhide en anduɓe qouran anduɓe sunna mbaɗa ɓe sehil aɗa yaada e mabɓe jamma e ñalawma sa yiiɗi ñiɓde ko muƴi kono so tawi an ka juulowo aɗa jogii sehilaɓe yaroɓe yata so tawi an ka jiɗɗo diine aɗa jogii sehilaɓe mushrik walla jaawinooɓe walla yaroɓe sangara walla heɗotooɓe musique alhaali ma yahata jooni ɓe ndaabma ñaw o jooni jooni ko rewi heen woni qira'atul kutub almutahassisa fi siyari sahaba aw fi siyari salafu salih eto so tawi aɗa janngi ƴeewa defte defte diine ɗe ngannduɗaa wallete daña sehilaɓe moƴƴuɓe daña yimɓe moƴƴuɓe e diine sa jangi ɗiɗon qissaji a anday moƴƴuɓe ɓe holko tagi ɓe moƴƴi sa jangi a andi moƴƴuɓe ɓe holko tagi ɓe moƴƴi etoɗa moƴƴude ɓe hono no ɓe moƴƴiri ni gaynirten ko etoɗa e hoorema an o kala ɗo wawɗa wonde haqqille ma wona e allah ihwatal iman ko ɗiɗo toɓɓe jeetati yaltinta neɗɗo e ngaamele e rewde allah e rewde wasde rewde allah allahumma arina alhaqa haqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala ijtinabi اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم من النبيين والصديقين والصهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله